ñi internet de Sénégal ñu ngi nii ak madame Fall macha allah mu jonga ma ñi ko doon laajte mu ngi nii madam ñu ngi lay nuyu bu baax. ñu ngi leen fay. di leen wax dama kontaan sama mënu maa fees. Ah, waaw ñu ngi lay wax ndokkale si bébé bi ñu ngi li nga sañse lan la li nga sañse dafa rafet macha allah. oustaz moo ma waajal ah? waajal. tey ñu ñëw teewe si sa. tudd lan nga ñu mën a wax ci oustaz Modou Fall ku ko xam-xam ne homme public la nit ñi dañ koy suivre donc lan nga ñu mën a wax ci moom. Modou de bu ma la dee wax ci moom yaakaar naa fi laay fanaan ndax fa dëgg yàlla sigil na ma sagal na ma ci samay kanamu nawle rëccu ma it li ma duggee ci moom. ndax nit ku baax la fa dëgg yàlla am na sama yërmande. am na sama yërmande yërëm na ma yiir na ma suturaal na ma wax fa dëgg yàlla nit ku baax la nit ku baax la dëgg yàlla tey boo ko gisee mu nekk ci télé bi yenn saa yi nit ñi di ko critiquer te xamuñu ko loolu la la lay def ah li nga xam ne siw moo mel noonu rek li nga xam ne siw moo nekkul jaami borom te ñëpp duñ bokk bëgg loolu rek la moo tax daanaka duñ ci mun a am benn duñ ci am benn problème. tey nga am doom bu jigéen mu tuddee ko soxna Fat Bintu di taawu turam euh, kiiwam trondoom donc tey lan nga ñu wax ci tuur boobu noonu. ah kontaan naa ci bu baax wax dëgg yàlla mhm. kontaan naa ci lool sax. wax ñu sañse bi wax ñu sañse bi li nga sañse ne ci kaw ba ci suuf. ak make-up bi ku fi jaar. make-up bi Fafa Fafa make-up moo fi jaar ñaw bi tey Fallou Tailleur moo fi jaar.